fallu fallu ay gadaane war na gaa yi na ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides mbégteem jamono yàlla na fi yàgg lool Mbacké te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Abo Mbacké xalifa Cheikh Mohamed Fadel Mbacké Khadim Rasoul Serigne Bassirou Mbacké jëwriñu kër Serigne Fallou El Hadji Seydou Sy mu baax mi le grand communicateur religieux de la banlieue jàmbaari Serigne Touba ji moo dellu si am mbégte mu rëy di yëgal ñëpp ak di ñëpp ci bés bu am solo bi mu baaxoo at mu nekk grande journée delloo njukkal borom na am mu am di Cheikh Mohamed Fadel Mbacké radiallahu taala anhu samedi la ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2021 partir de 17h ci Géejawaay rond-point Fadam bésub ren bi ñu dara jaale ko Serigne Modou Awa Balla Mbacké moom borom Daaru Muxti marraine d'honneur yi soxna Bali Muntaxa ak soxna Mambar Mbacké mu Alaaji Baara Falilu di doon ci présence d'honneur ba monsieur Aliou Sall maire de la ville di ko Diop ministre de l'intérieur monsieur Matar Ba ministre des sports madame Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse madame Mariama Sarr ministre de la fonction publique maire de Kaolack monsieur Mamadou Yaya ministre conseiller El Hadji Mbackiyou Faye représentant Serigne ci Ndakaaru El Hadji Modou Thiane représentant Serigne Fallou ci Ndakaaru monsieur Samuel Sarr taalibeb Serigne Saliou bi jëwrinu monsieur le ministre Birima Mangara El Hadji Makhtar Thiane ambassadeur itinérant bu Serigne Fallou Cheikh Fallou Mbacké transitaire PDG RTL El Hadji Abdoulaye Dia PDG Sénico jàmbaari alxuraanul karim Serigne Khadim Lo Gaydel monsieur Omar Bao mu Serigne Mountakha opérateur Serigne Fallou Galaslo Gaydel Bour Dali monsieur Lat Diop directeur général LONASE Amadou Diop Guèye Fifty borom tapis vert Serigne Mohamed Samb soldaaru borom Touba Cheikh Souley Diagne PDG Ali Distribution Cheikh Mbacké Guèye mu El Hadji Bara Guèye monsieur Mor Woré Guèye maire de Ndiarème Limamoulaye colonel Ousmane Faye mu sëriñ Abo Fallilou sëriñ Medoun Sey borom taw féex Xaadim Dia mu El Hadji Mbaye Dia opérateur économique sëriñ Cheikh Diop Koki fondation Soxna Baali colonel Abdourahmane Ba colonel Mouhamadou Bamba Sall taalibeb sëriñ Fallou bi Daouda Faye opérateur économique Babacar Ndiaye Ndiak monsieur Babacar Niang Bane opérateur économique sëriñ Abdou Ndiaye Kourouss ca Pikine Cheikh ay dara ca Jolof Iboulaye Diagne génération automobile président Modou Gueye convention neneen karo Abdoulahad Kebe Mondial Caro Abdou Waré Diop Décotex Touba Tawfekh Monsieur Balla Seck Camara opérateur économique Adja Daba Ndaw présidente internationale ASIF soxna Khadija Ndiaye Mbacke coordinatrice ASIF ak Adja Marikan présidente honoraire ASIF radiallahu taala anhu sëriñ Mamor Mbacke Falilu mi ñuy jooyte noppee guñu dinañ ko defal hommage ca bés ba ak soxna Faati Kebe mu sëriñ Basiru Falilu njàngum alxuraanul karim ak njàngum xasida la ñuy xëyee ba tisbaar 17h jàpp 18h kuréelu xasida ci ndaanaan ya fay teew dina ci bokk sëriñ Malick Seck sëriñ Modou Galas Mbaye sëriñ Saliou Samb ak sëriñ Khadim Gueye Touba bu ñu demee ba 22h ci la ñuy amal cérémonie officielle bi bu ñu ci noppee 23h jàpp jàpp minuit ñu ànd ak Serigne Fallou Tabala bés bangok grande journée delloo njukkal Cheikh Mohamed Fadel Mbacké radiallahu taala anhu ak le grand communicateur religieux de la banlieue di El Hadji Seydou Sy samedi 27 novembre 2021 à partir de 17h ci Guédiawaye rond-point Mor Fadam Fallou mbër mu mel ni giwaay duñ ko am di gàccaay suñ mébét duñ ak saay moom la